ETDR Evans présente mbokki Sénégal déglu leen bés bi bés bu mag la ci wàllu lamb le dimanche 9 juin 2024 ci arène nationale deuxième édition drapeau des Faramarène monsieur le ministre Omaro Gueye porte-parole du président Wali Balago Seck bu Yoof ndaanaan bi champion bi moo fa war a jàkkaarloo ak doomu Rëbës double moteur cey boobu combat mbokk soq bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Bouba Teg Choc ak Eumeu Junior Boy Pire jàkkaarloo fa ak Mama Lamine numéro 2 entrée supporter bi ñu ne 3000 Events ca yàlla. mooy combat ñu ngi si tamit mooy kalaaf bi diggante caatu yaraax ak kii xamante mooy njaay ji. boobu ba kalaaf bi moo départ beneen kalaaf bi moo ñëwaat. waaw da am A am B. A bi jàll B moo fi nekk nii. B bee ñëw. bee bi nag caatu yoof mooy favori moom li dal Doudou Sané si bee moo ko dal. ñaari pays yi ñooy laal. Doudou Sané bu caatu yoof bi bu daa ba jël pee trois oh, victoire. mu oh, oh, am trois victoire. mais Ndiaye Tine bu ko daanee am deux victoire moom tamit ñoom ñaar dañuy tolloo. dëgg la boobaa dañuy dem xool si li nga xam ne mooy ci temps bi. waaau sa waay su daanee benn défaite la am ak benn victoire kii am ñaari victoire kii bu daanee day am trois victoire day jël pay kii bu daanee ñoom ñaar dañuy couragé dañuy couragé dañuy xool temps bi te moo gën a bëre lu gaaw ñu jox ko victoire te moo gën a gaaw ay combat comme du new xam naa ne du Sané génn na si pulu aaba. jaajëf liggéey na xoolal ni mu ñuulee te ku xees la. ma jaajëf yow. wop pop pop lu la ree si tabaatin. ab bal la yor de. ku jur deewoo. ma di ñu koy weq. booy li wóor naa. jàkkaarloog ñun ñu dóori bal. wop pop abu. bal bi dinaa ko laaj maaraay ma xam baax na jàkkaarloo. dëgg la lii wóoru la. wóorul de. yàlla nañ sëñ Fallou aaral boppam. amiin waay ñun suñu yoon nekkul si dañuy lam dañuy rapporter rek. sëñ Modou Touré dinañu aar. sëñ Modou Touré ak sëñ ak sëñ. yàlla aar dina ma aar. maa la wax ñëwal. sëñ Fallou Seck borom tamit sëñ Touba ah, waay waay góor gi si ruq bi moo ma yee. góor gi si ruq bi moo jox añ tey. wóop pop pop borom Amérique. yàlla ko yàlla fay xolom. amiin moom. amiin waay sëñ Ndiir. borom Pakula borom Jasineer borom Afalo bi. abu kooku boo ko xam ne pom moo tax lu ma waay yoon rek ñeenti ñooñu ma yàlla may ñoo tax du ma mer sëñ Fallou Ndiir sëñ Fallou Seck sëñ Saliou Ndiir góor gi sama grand sama mag sama xarit muy borom géej gi. dëgg la pop pop abu ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. ku gërëmul nit doo gërëm yàlla. mais ba ma wax ba léegi bu ma leen nee ñaari nit ñeenti laay gërëm. dëgg la nga dóor kat. bilaay man xamuma ko ndax man tàmm naa liggéey. damaa yàgg si mbëri rek. ci liggéey ku la xam ci liggéey la xamee. ndax bi ma génneeg léegi boo yi ngay wax ne maa leen yuuxul yëpp. dëgg la dem nañ wala demuñu. dem nañ de. dama ne la bërekat mooy xam bërekat jëndkatu xar ay xam jëndkatu xar mais jëndkatu nag ay xam jëndkatu nag. waaw te man jëndkatu mbër laa. dëgg la war na maa mën a xam mbër mu mën a bëree. mbër yaa koy jeex fee ku ne wéqante. coow mun na fa am de. non coow du am. ndax ña fa ñàkk ñëpp ay borom sikkim lañ. waaw mbër borom sikkim bu ko toppee coow du bari. mais mbër bu ko booy fan si toppee coow mën naa bari. dëgg xanaa xamoo mbër ba si fan si kële bi duggee di ànd ak mystique la coow am. mais bu njëkk eh, sawru waa ndooy ndeysaan manager la day nelaw per ndooy mbërë may bëri day nelaw caatu yaram nekkatu fi de nekkatu fi bu doon bu doon bu doon ku fa ku feebar la ruyal ko jox paase na ko sungu fa jox feebar dina àgg foo xamante ne. dëgg luy sax lu si amu yoon. waaw. moo dax kuy bañ dugub xamoo ko. day wallaay. laay wallaay. xoolal ma xoolal ma commandant Thioune. non tey kañ làmb jee neex. da ngay toog ci blouse bi. ñu lay joxe si écran. wax jee fi ne mais liggéey bu rafet na liggéey ci làmb de. ah commandant waaw. bu rafet la def ci lamb non commando Thioune daanaan la daa laabir nit bu laabiree day mën a yor ay xale. Maguette Mbengue. waaw ak gas bàyyam baax ja Gaston Mbengue. waaw yàlla yàlla suñu borom xare àjjan. waaw ci kawam. waaw Maguette Mbengue mii. waaw ko dese desul tur dara lamb. maa la wax loolu moo taxit lu mu def du si xool bénéfice day xool bi si papaam yi rek ndax mu dem. ndax ndax yenn saa mu fere loo xamante ni boo dénnu teg moom mënoo xam makan mais makan borom jom la tudd onk te makan amatul ku muy leb ku dul banque mënul laa leb ndax ku la ñeedu la dolli mais na gën a góorgóorlu rek xam ne papaam daanaan la yàgg naa tëgg galaa mu neex. Ndiaye Tine waaw waaw. a caatu yara waaw. comme tey nga ne nga ne banaana bi mu nga gën a fere banaana bële. waaw loolu rek a si am mais ñoo tolloo lépp. moo tolloo lépp. waaw mais ku mën a dëgër. ñoom ñëpp dëj nañ léegi dëgër la xool si ñoom. mais nag Ndiaye Tine ah tirage bi. premier combat yi dala ko moo métti. première kala yi caatu yoof la dal ca ca caatu yoof muy doog a commencé. maare dëpp. ah Baol Baol yi ñëw nañ de. ah moo la wax loolu. wala caatu yara. wop wop wop wop. eh bo eh caa eh caatu yaraax mais jàppale nañ ko de. kii caatu yaraax jàppale nañ ko de. waaw am nañ tey lii mu dugal. naanaan la. ah kii man naa xoolal booya. Modou Anta ngi ñëw. duy na kaw gi ba mu fees. kan may fekki du saane. ndeysaan. oh caatu ya caatu yaraax be moo gën. ndax caatu yaraax 3 point 6 point la génne. waykat yi dañ dégloonte waykat yi duñ dégloonte. ndeysaan la caatu yaraax def kee def na ko. lëbu ñoom ñaar ñëpp sukk nañ. tegtal dañoo bokk tegtal. moo commissaire ñëw na. commandant. moo daan ta. ah waaw kan mooy fekki Doudou Sané ca final ba. fii lay leer. neuf points yi moom génn na Doudou Sané. Doudou dem na final. jël na poule ba dem na yoonam. le 28 la war a bëre. la war a bëre. incha allah mais noo gisee ñaari xale yi. waa léegi léegi dama ne lambloog. dafa am bu fere ak bu gën a fere mooy diggante Ndiaye Tine ak Thiatou Yarakh su ma waxee ñi faral Ndiaye Tine mën nañ ma mere mais dama ne ci côté bëre Thiatou Yarakh moo gën a pare ci bëre moo gën a ci bëre ci doole ëpp ko Ndiaye Tine am na doole yaram bi car macha Allah liggéey na muscule na mun na xeex mais ci côté bëre bi bëre bi nga xamante ne tey ndox tu bëre bi ñuy wax ci lamb ci caatu Yarakh la ëppee ci Ndiaye Tine lamb noo gisee ñaari xale mais li abu wax noonu neexut a dindi Ndiaye Ndiaye caatu yaraax a ko gën a xajam bëre mais Ndiaye Tine telewul doole mais Ndiaye Tine na bàyyi forcé takk forcé takk baaxu ci moom kaleem da koy forcé mais bu doon bu doon bu doon xool fële ba nga dee ne la mu ñëw fa ku naqaree daal lay doon moom Ndiaye Tine mais del xool bu arbitre soufflé lu muy def da koy forcé am na mbër yoo xamante ne bis boo leen forcé dootoo ko defati te caatu yaraax da lay dugg rek nga jeex da lay dugg rek daal jaajëf kooku mooy Lambalok ak Abou Sefa mbokk yi combat baa ngi nii dégg ngeen ñoom ñaar li ñu wax ci combat bi Omar yaa ngi ci njaaytin ndaanan la may ko mu ñëw. koko laay laay lay waajal. koko laay laay. waajaw ma seen. ayca techniquement may ma ma ñëw njaaytin a ngi noonu doomu bawol bi moo bëre woon ak sump gi. moo bëree nag Boy Niang bu école de lutte Boy Niang moo bëree woon ak moo bëree woon ak Omar demal ci Ndiatine moo bëree woon Arobas moo bëree woon ak xale bu Tëngéej moo bëree woon ak Baye Mandione moo bëree woon ak ma bëre woon Caatu Yoof moo bëre woon ak Gamou waaye Omar demal ci Caatu Yaraax Caatu Yaraax a ngi noonu moo bëre woon ak Leeri Fall moo bëre woon ak Boy Joson moo bëre woon ak Deux Ziga moo bëre Aatu moo bëre woon ak moo bëre na xale bi ngeen mooy Zal Bawol moo bëre nag Serpent moo bëre nag Bulldozer moo bëre nag xale mooy Mame Balla moo bëre woon ak kii nu mu gam Gamou Gueye 2 moo bëre woon Caatu Yoff tey moo war a ak Ndiaye Tine kon seen palmarès yi nii la demee Kalmu Nduuro ko daan ak Caatu Yoff Caatu Yarax Boy Joson moo ko daan ak xale bi nga xamante ne mooy Mame Balla top 5 moom Bulldozer nag moo jëloon victoire fii Bulldozer def recours ñu maintenir victoire Thiatou Yarakh Bulldozer def appel ñu jox ko victoire Thiatou Yarakh andi beneen kayit ne dañoo falsifié kayit yi kon combat boobu loolu laa ca xam. dëgg Anta Yarakh yàgg na am ay ndaanaanu bërekat booy naar fa la dëkkoon booy naar bu Yarakh moo taanoon dem si yàlla si Aliou Diwane. Moussa Ndoye fa la dëkkoon Binta Ndiaye ñoom ay dañu am ay ndaanaan ku ci mel na suñu père père Nguuda mu Canaba ñoom ñu fa lañu féete yaraax lañu féete woon tey caatu Yoff yi génn yaraax wës jàmbaar ne fa ama bu yaraax ne fa ak laadum ba doon na ay ndaanaan ñu fa ci ay ci ci làmb te yaraax yi ñoo yaru ci bëre waaw ay mbëri yaru lañu doo leen dégg ci beneen détail yi seen i mbër war na mën a nekk doon na Tapha Tine ci làmb waaw mais tey am na lu ñuy essayé si Ndiaye Tine. maa ko gis léegi bi ngeen de waxtaan. mais tey génn nañ lu bees. kookoy lambalok. léegi combat bi bu jàllee dinaa si def njàngat bu rëy. léegi nag moo am façon bi caatu yaraax di bëree tey combat ma Ndiaye man mën naa yàgg. waaw parce que Ndiaye Tine la gën a man ka def kele. pour nga jàpp ko daan ko nag yombut. caatu yaraax mbër buy def kele la. mbër la boo xam ne day mbot day ramasser ci ay tànk Ndiaye Tine nag mbër bu dëgër la boo xamante bi nii neexut a manipuler Ndiaye Tine yaakaar naa ne tey jii war naa wone boppam am ñaari victoire Thiatou Yarakh tey war naa confirmer pour génn ak 9 points. Ndiaye Tine wàññi na yaram bi lu bëri mais li mu liggéey nii moo ëpp mais tey boo ko xoolee daa tuuti mais daa wàññi parce que entraînement bu metti day tax doo volumer. mais bu noppalikoo bu ñëwaatee di nga xam ne Ndiaye Tine daa xees mais tey Ndiaye Tine daa ñuul. kooku mooy lambal ak baa ngi wax ak ñoom Tapha Tine bu Kër foo féete Serigne Ndiour foo féete Double Dof Ama bu foo féete arbitre nee na ndax pare nga Assane Fall Global Textile ñu ngi lay bëgg arbitre na Ndiaye Tine caatu Yaraax jiital na góos depuis moom catu yaraax Ndiaye jiital goos ñu jëm ca lang ga ana lan mooy xew Serigne Ndour foo féete maas bu vite fait foo féete Modou naa la wan ñaar de ah. xeex bu neex ak xeex waaw bu neex mais est xeex bi déggoo bu neex bu neex bu ñu xeexee xeex bu neex la kon ñu yoon yónni yàgg dama yaakaar ne woon xeex i déggoowul waaw xeex déggoowuñu na parce que waaye li ci jaaxal am na ku ci sensé ñoom ñaar Thiatou Yarakh moo changé pied. Thiatou Yarakh moo changé pied moo tax daawul demee nii. daawul déedéet deux pieds la. comme ñaari pieds la nag xeexee mën naa metti. waaw kay abu xoolal tey njaaytin bu njaaytin bu ma doon mooma. nan leen ko waxtaanee rek. xoolal njaaytin bu ma doon mooma. bi mu changé pied laay dox dëgg la fooram. li la am wax dëgg la ku fetal ñu remise. ku ñemee da ngay song song bu àgg. ndax boo ñemee da nga ko fay fekk da ngay dugg dugg bu àgg mais bu ku ku ragal di jël kuu la bett. man dama ne. Caatu Yaraax day tey parce que Ndiaye Tine a gën soxla. waaw Ndiaye Tine 6 points soxla. Caatu Yaraax soxla 9. bu niilee Caatu Yaraax mooy jiitu ba tey bu nu muy temps Caatu Yaraax ay bu Caatu Yaraax daanee accéléré la cadence lappali bu Ndiaye Tine daanee. am na nu ñuy calculer ci combat yi. caatu yaraax ba tey mën naa génn. ma ne ko abu caatu yaraax buñ ko daanee gët som daa war a wax ak moom ndax match nii sax da koy génne. waaw kee bu daanee deux points lay am ñoo te ñaar dañuy tolloo dañuy tolloo ñoom ñëpp seen combat jeexal la ñuy xool kon mooy gañ. jaay ti nag bu ma doon ñëw damay ñëw teg bakkan xëpp ci carte gi. xajamal ko. mu doon fexe xajamal kalaab bi. mu doon caatu yaraax bakkan la war a teg. ndax parcours bi kenn waru koo saltal. dëgg la Fatou Yalla góob mu mu def ci ay coono yu bari de ci combat bi a ah, c'est normal bu dee am na conseil. waaw daan so daan kii yaa gën a soxla. bu dee am na conseil day bàyyi Ndiaye Tine dal ci kawam rek. te loolu ko daan ko. loolu lay bëree. Ndiaye Tine am na droit bu muy dóor na ko sóoraale bu ko dooree tey jaadu yarax dina ko song. waaw parce que Ndiaye Tine foorul ci gauche droite bi lay xeexe. te caatu yaraax mu la song bu la songee da lay daan de. xoolal caatu yaraax bu lay song muy jeex. waaw. day jeexal song. mais est-ce que ñi mu doon song ak Ndiaye Tine benn lañ. moom bu lay song doo ko yëg looloo daa mën song daa mbër yu mën song am mbër yu mënul song mbër buy song di téléphoné bokkut ak mbër muy yoxoo su ñëw. Fallou bu caatu yaraax maa ngi lay bëgg door na ko. laay dal na. bu caatu yaraax. gis songu ba yaa ngi songu. non non naa la ku ñeme. da ngay songu songu bu dee bëreet day dem. mais ku ñemewul doo songu ba am gis nga jaay caatu yarax jëloon na ko bu yàgg moo tax xeex bu neex la. c'est caatu yarax. dafa dëj tànk bi. ah ko mu lamb ko mu dugg sësë looloo ko war de. dëj lamb jege si arbitre bi woowaat na leen. arbitre avertise na avertissement Ndiaye Tine. waaw léegi lii ba léegi day arrangé Caatu Yaraax ba léegi ci combat bi. am na arrière de xoolal ta xoolal bi ni mun xate arbitre bi day entraîné de. am njool de. waaw day am njool bu tànk mel ni si arbitre kii mën naa bëree. njool bu tànk yi taxaw. waaw moo gën arbitre boobu ñu mu daanu bu yàgg kii boo ko daanu de gaa yaa ngi Caatu Yaraax Njaay Tiin ña ngay naxante mbër yaa ngi bëri ma ngi am waa ñu ngi waay Caatu Yaraax nag loxo bi lay xaar mu jug rek mu jàpp ko kii way mooy mooy géelu géelu makan géelu gasson waaw ay way neex na parce que lamb ay way ci dafa am solo ci lamb walaay ndeysaan daa man nag tey nag Njaay Tiin conseil ko ndax Njaay Njaay Tiin tey nañ ko ndax tey gis nga ni mu teeyee si bëre bi waroon a def si mais daa dee noonu ku ma gis moo la mën. combat bi damaa gis ne normalement warul mën a gaaw quoi. non bii war xool buñ bëree day gaaw tànk yi teg moo baax mais buñ bëreewul day yeex mais bu ñuy jàppante ko a di am. caatu yaraax caatu bëgg a daanu si combat bi mbër bu daanoo defarwaat day métti. parce que boo daanee ki boo daanee ki ko daan. boo ñëwee mu daan la dan laa war a xas. dëgg la. te caatu yaraax moo daan caatu yow mi daan jaay waaw dëgg la mu daan xaw ma ndax loolu lu muy nuru ak lu muy wone mais Ndiaye ci da nga def geste yu garaaw gis nga gis nga ko mu daan eh daan na la ma la waxoon lay lay la ñëw doo ko yëg ay xale bi ay xale Muktu Sané ay xale bi final baa ngi ay xale bi ay xale bi billaay nañ ko bàyyi xel billaay nañ ko bàyyi xel xale bi finalu na jël ko ma ngay rulle ma ngay përee Lion Blanc Thiatou Yarakh. finaalu na. Fall bu Thiatou Yarakh. le 28. Dame bu Thiatou Yarakh. le 28 mooy final ba. Djil bu Thiatou Yarakh Djil. <laughs> Maas bu Thiatou Yarakh. jeexal. rëcc na. 9 point. 9 victoire. sa waay na bàyyi na Ndour. sa waay na la am na lu ñu essayé. ma ngay jënd téere sànni. Serigne Ndour félicitation à victoire. Kalaaf dafa baax ci lambu. Kalaaf dafa baax ci ay mbër. moog Doudou Sané dina neex. Thiatou Yarakh Doudou Sané. Mamadou Sané la. Caatu Yaraax Doudou Sané. <laughs> kii mu lañ joxoon tukaar bi. bul fàtte ne. waaye Yaraax bokkoon nañ kalaaf. Moussa Ndoye demoon final ak Malick Niang. daan Moodu Anta. daan Mamadi Ndiaye. daan euh, kan. Bébé Saloum daan Bébé Saloum. lamb. waaye Yaraax miin nañ kalaaf. dafa am kalaaf bu Gaston tëggoon. Moussa Ndoye bu Yaraax ci la bokkoon. daan du daan kële lu mu tuddati Modou Anta daan Mamadi Ndiaye daan Bébé Saloum dem final dajeeg Malick Niang. waaw waaw ba pare ama fa final. tey lamb di dox ba seen doom màgg ba duggaat ci kalaaf. non ñoom ñoo moom yeeg ñoom ñoo moom loolu lan lay nuru. non da leen dafa am ñoo xamante ni gàncax da leen a jig am ñoo xamante ni final da leen a jig am ñoo xamante ni galaar jigu leen xoolal tey jii boo jaxaaw. kara bi amu si dara tey mënoon na si am benn victoire sax mais gis nga li ko yàlla cërale mais nag mbër yi noonu la ñuy mënantee bu la mbër mënee si fit nga man ko si lasfeer bu ndawal gi nga jël ceeb bi mais yaraax moom caatu yaraax buñ ko jàppee mën nañoo am lu ay ayca grand komba grand komba ETDR Events présente. mbokki Sénégal déglu leen bés bi bés bu mag la ci wàllu lamb le dimanche 9 juin 2024 ci arène nationale deuxième édition drapeau des Faramarène monsieur le ministre Omaro Gueye porte-parole du président Wali Balago Seck Modou Dia bu Yoof ndaanaan bi champion bi moo fa war a ak doomu Rebeuss double moteur cey boobu combat bu soq bu ndaw dina fa jàkkaarloo ak Bouba Tek Choc ak Eumeu Junior Boy Pire jàkkaarloo fa ak Mama Lamine numéro entrée supporter bi ñu ne 3000 francs amateur bi 5000 francs loge events te yàlla suñu borom xale yi rek ñoo mën làmb nag